jërë ngeen jëf Aminata Touré mi ñuy tuumal ak lii ko jalgati ca conseil économique social ak environnemental weddi na ko ba mu set wecc yëral xët mu njëkk la quotidien premier ministre u Sénégal ba woon njiital conseil économique social ak environnemental ba woon ab communiqué la génnee ngir da ca dàq tuuma yi li ñu naan ab sàmm bu bëggee rey ab xajam da koy jiiñ ràmmul loolee moo fi nekk waaye li ñu koy waxal ay sosi la dara du ci dëgg ab deram la

matoon fi Khalifa Sall mi ngi yeeru Mimi inspection générale d'état gi ñu ne moo ko épinglé yéene kay l'observateur instrument de guerre contre les ex alliés noonu la ko tuddee ci xëtamu njëkk maanaam jumtuwaay west jëfandikoo ngir di ko xeexe ñi àndatul ak yow Alioune Ndiaye dib journaliste doo kuy càmbar ak gëstu politique réew mi mi ngi ciy joxe xalaatam xalaat beneen bu nekk ci yéene bi moo di bopp Mamadou Diop Decroix li mu li ñuy wax ne dara ca ndax bu xew amee moo xam xewu bànneex la wala xewu naqar délégation ba fa conseil économique social environnemental di yabal bu ñuy dem xaalis bi ñuy yóbbul ko xewle ca loxoy secrétaire général ba ca la koy teg ku dul secrétaire général ba ak daaf ba amul keneen ku la mën a wax xaalis ba ñaata lay doon sursoi nañu li mu jur nag moo di ba fi nekk ni mbindeef mënu wax li conseil économique social ak di génnee tàng jër la mu di 500 millions mu fas yéene génne ca budget ba ngir ay tukkeem ñu ne déet na waaye mu ne nañu génne lu toll ci 1 milliard ngir ay fête ay réception ay frais hôtel ak location oto Alioune na ca lettre ba budget mairie bu Ndakaaru bi toll ci 59 bi ci Barthélémy Dias génne li mu war noose moo ki ñooñam rek la ci génnee ngiri investissement Alioune Ndoye am na it yeneen milliards yu teg millions yu Barthélémy Dias ne dañu koy génnee ngir extension ak entretien éclairage public bi di lampi mbedd yi Alioune Ndoye li ci doy moo di marché boobee entreprise ba ñu ko jox fukkeet ak juróom-ñeent ci ren at mu nekk même entreprise bi la jox marché bi nee leen it na ngeen góorgóorlu ba millions yi ngeen ne da ngeen koy génnee ngir jàppale ko waa Ndakaaru yi seen loxo jotul seen ñu ne budget mairie bu ndakaaru bi toll ci juróom benn fukki milliards yu manqué ñaari téeméeri millions cinquante neuf milliards huit cent millions ubbi na Fanta Siro ci diggante Barthélemy Diaz ak Alioune Ndoye Ousmane Sonko gàngooram ci mbeddi Ndakaaru yi Sud Quotidien nañu ginnaaw waa société civile gi wàccoon ca place de la nation defoon fab rassemblement bu ñu doon sàkkoo ñu lijjanti li ci rapport Cour des comptes bi waaye yeewi askan wi nee nañu ñoom it dañuy dajaloo ca place de la nation ajjuma ji di ñëw la fay xeex yéenekaay bi nee nañu moo di troisième candidature bu Macky bi ak it àjjuma juróom-benn fan ci yoru janvier danañu defub rassemblement ca place de la nation ku mu neex ak ku mu naqari Ousmane Sonko mi ko wax journal Le xëy na di ñu wax ay waxam coowal Sweet Beauté mu di massage am baak Adji ci la journal bi xëy dellu ba samp cab laaj laaj bi mooy maître Dior Diagne tudd ci coow li lu ko ci ubbil yéenekaay bi affaire bi journal bi nee nañu bari na ay lëj-lëj ak lu ci lënt xelu askan wi ndax bari na ay kilifa ba awakaay Ousmane Sonko yi sax doon sàkku ci yoon mu woolu woon Adji Sarr maanaam moo ko dëkkaloon ci lu mat fukki fan ak juróom ci jamono ji mu porté woon plainte Ousmane Sonko yéenekaay bi nee loolu wax la jooj Adji Sarr na ko ndax nee na xamul maître Diordiane ci aadama xamu ko ci awa ñi ñuy wax ci dossier bi muy Adji Sarr di Ndeye Khady Ndiaye di Sidi Ahmed Mbaye ba ci docteur Gaye maître Diordiane su cee gis kenn